presse bi mu ngi alerter sur la situation bu majorité bu bees bi nar a fekk. Mhm. situation économique situation financière euh, l'état l'état de la gestion du président Macky Sall. Mhm. xëy na dina am conséquences négatives sur le nouveau pouvoir sur la la question du salaire euh, les salaires les les finances publiques. Mm deuxième grande question bi ben, les attentes. Les Sénégalais attendent le, le gouvernement sur des questions précises, mooy les denrées de première nécessité, la location, le, le transport, le, le, euh, l'amélioration du niveau de vie des Sénégalais. Donc mm-hmm. ñaari thématique yooyu moom euh, sës na ci actualité politique bi. Bon, maintenant c'est vrai que il faut quand même euh, dire que le gouvernement n'aura pas d'état de grâce. Sénégalais yi yaakaaruma ñu xaar croiser les bras gouvernement bi ñu xaar. Mhm. Euh, quel est l'état du réel. du mhm. pays pour gouvernement bi saytu def audit xam état du pays mais deuxièmement gouvernement bi lan la nar a teg ci loxo Sénégalais yi ci wàllum dund ci wàllum euh, liberté ci wàllum amélioration de la situation. Mhm. bon maintenant les autres questions c'est vrai que euh, y a une nouvelle majorité PASTEF euh, coalition Diomaye mais il y a une nouvelle opposition. Mmh. Bon, la nouvelle opposition ça va être qui? En priorité c'est l'APR, c'est Benno. Comment le PDS va se positionner? Est-ce que day dem ci majorité wala ndax day dellu? Mhm. Donc ça quand même am na importance que ñu bàyyi xel ci opposition parce que c'est vrai que y a un pouvoir sénégal yi ñoo tànn seen président mais opposition bi aussi sénégal yi ñoo ko tànn. Mm-hmm. Euh, donc euh, il faut euh, presse bi bàyyi xel ci recomposition xëy na dina am ci biir opposition. Mm-hmm. ça c'est une question très importante bon beneen question bi c'est mooy bi nga suñu sànq lu PDS. bon participer na ci victoire Diomaye mais est-ce que dina bokk ci mhm. gouvernement bi mhm. euh, ban position le PDS euh, nara nara am et peut-être le dernier point qui est inquiétant quand même pour tout le monde c'est la cocaïne mhm. ah, lu ñu saisir c'est énorme c'est énorme euh, bon dans la zone de Kédougou mais euh, y a pas que Kédougou c'est l'ensemble du territoire affaire drogue bi daal je pense que war nañ ci jóg Mhm. c'est c'est ça veut dire que Sénégal de euh, tey jii c'est une plaque tournante de la drogue. Mhm. Mhm. et plaque tournante nag c'est vrai que y a la drop mais drogue euh, lu ko lu ko lu ko lu ko entouré dafa bari. ah c'est le banditisme c'est le vol c'est le trafic de l'argent c'est la prostitution je crois que nouveau gouvernement bi quand war nañu xool euh, commence gérer cette. cette plaque cette plaque tournante la mm-hmm. que dina am conséquence énorme particulièrement sur la jeunesse. Mm que que lu ñuy coow coow coow drogue bi yëpp. je crois que c'est l'avenir de notre jeunesse quand même qui est qui mm-hmm. gouvernement bi war na ci war na ci bàyyi xel.